ginnaaw bi ñu defee boobu taxaw seetlu ci wàllu liggéey bi tey lan la taalibe mën jàpp ci information ci wàllu liggéey bi ci wàllu liggéey bi maa ngi ñëw ci turu jamaatul nur al mhm. bi nga xam ne moo wuutu taalibe yi ci liggéey bi ci njiitu uh, Mamadou Makhtar Cissé mhm. ci wàllu liggéey bi nga xam dañ ko ko dénk ñu ànd ci ak moom mhm. wax nga ko indi nga étape yi nu jaar yëpp mais boo demee Tiwaawan gis jumaa ji gis la fa def waaw te dara nekku ci brique. Mm. lu dul ay ciment béton. Mm-hmm. war ngaa jàpp ni liggéey boobu du liggéey bu ndaw. Mm-hmm. du liggéey bu ndaw du liggéey boo xam ne aussi dafa war a taxaw. Mm-hmm. dafa liggéey boo xam ni dafa war a bis bu nekk ma ngay jëm ca kanam. te bokk na ci li tax ñu toog fi pour wax taalibe ni lanu doon laaj pour nit ñi dugal ko seen loxo ci ziar bokk seen daw rawal seen pas-pas ci jumaa ji mm-hmm. tey jii la gën a actuel mm-hmm. parce que liggéey bi ku fa dem ba gis ko mm-hmm. di nga xam ni ñii fay liggéey yor liggéey bi ñi ngi ci am taxawaay bu am solo boo xam liñ ci bëgg rek mooy mu sotti sëriñ bi ànd kook ñun ak mbokk jullit yëpp ak taalib yëpp ñu julli ci kon ci wàllu liggéey am na ci loo xam technicien yi ñoo ko moom. Mhm. ñoom ñoo ci war a wax. Mhm. am na ci loo xam ne aussi ñi yor yeneen secteurs yi ñoo ci war a wax. Mhm. mais ci wàllu communication bi nga xam ne moom moo nu yor. dañ ciy jéem a jàpp rek ni. àgg nañu foo xam ne ci travaux yi. ku dem Tiwaawan tey jii. dem fa ba gis fa nu nekk. di nga xam ni ñi taxawunu te lépp lu ci nit dugal dugg na ci biir jumaa ji. looloo tax ñu ni fàttali nit ñi ni ba tey seen loxo warul jóg ci jumaa ji. tax. li tax mooy jumaa ji li mu boot dafa bari mhm. dafa boot ay projet yu nga xam ne bu ci nekk mhm. laaj na nit ñi bis bu nekk ñu dugal ci seen loxo mhm. bu fekkee ni jàkk yi ngay dem ñu fay takk jabar ngay fekk mu paree ventilateur yi daw ñu naan nanu laajal jàkka ji waxtuma la ak jumaa joo xam ni pare ba kon projet yi mu boot yëpp bu ci nekk mooy tax pexe yi di am ñuy xalaataat di xalaat ba dugal ci li nga xam mooy pinsi naa ci ñëw bu ci kanamee mais li am solo ba am solo mooy di nga am mbégte mu rëy rëy gis nga ko noonu. Mm-hmm. ci li nga xam ni dimension yu ñu jël. parce que mm-hmm. bu fekkee ni deux cent vingt deux mille personnes. Mm-hmm. ñoo mën a julli ci bërëb bu toll nii. xam nga ni deux 22 mille personnes. Mm-hmm. yoo xam ni jumaa ji mën na ko yóbbu. 22 mm-hmm. 000 personnes. jumaa ji mën na ko yóbbu. ñu ngi ñu ngi fàttaliku ni bi ñuy def euh, taxaw seetlu ci wàllum liggéey bi ak fan lañ jëm waxoon nañ ni jumaa ji day am autonomie day ci wàllum électricité. mais loolu dafa dafa am. dafa am ay centrale moo xam ne moo koy alimenter parce que jumaa ju toll nii ak li mu laaj. ak li mu war a jëfandikoo. ci wàllu énergie. Senelec attanu ko. Euh, seen rek attanu mhm. donc loolu ci projet yi la bokk bu fàtte aussi ni assainissement mhm. parce que jumaa ji day nekk jumaa joo xam ni lépp loo xam ni dafa war a nekk ci wàllu assainissement mhm. ci liñ fa prévoir yëpp dafa war a yem war a dëppoo ak plan directeur assainissement bu Tivaouane plan d'urbanisation bu Tivaouane donc mais jumaa ji xaarul loolu waaw jumaa ji moom plan d'assainissement am dafa bokk bu bay ñëwee bokk ci ànd bu ci ñëwul it dina fekk mu pare xam nga ni gàmmu yëpp ci nawet lay doon. Mhm. te bu nawet ñëwee fokk ndox am. te loolu boo ko jëlul en charge léegi. Mhm. doo ci mën a àgg kooku techniciens yi ñoo ci wax. Mhm. mais pour wax rek ni liggéey bi fi mu war a toll. ci nit ñi ak lan lim leen jaral ba nu egg si fii. ñuy ñaan ñu gën cee dugal seen loxo. ci wàllu woowu. ndax ñi koy liggéey. guddeeg bëccëg ñu ngi ci 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 pour dëppoo ak li nga xam moom liggéey yi moom la ñu war a def. Mhm. kon xam nga ni euh, du liggéey bu ndaw gis nga ko lépp di ay weñ. Mhm. moo tax li Khalifa Niang euh, euh, président comité d'organisation wax. Mhm. xam nga lii du loo xam ni nit ñi mën nañ faa toog rek di wax. gis nga fii ñi ngi ànd ak Abdou Hamid. mi nga xam ne mooy yor communication bi ànd ak ak sëñ Maam Alpha. ñu leen di ñaanal fan wu gudd ak wér. ma teewal leen fi tey gis nga fii ñu toll. te lépp amul brique. lépp amul brique. benn amu ci brique. lépp loo gis ciment la ak béton. Mhm. moo tax échafaudage yi ko tubaab di wax mooy weñ yi ni tabax ak ay dénk yu tax looloo tax bëgguñu kenn dugg ci biir. te itam ñuy bàyyi xel ni am na ascenseur bu ñu war a prévoir buy wàccee nit ñi ci toilettes yi. waaw loolu loolu loolu loolu gaayaa nga ca. Mhm. loolu mooy toilette yi nga xam ne bi nu wootee wonoon na leen ko. Mhm. mooy ascenseur boo xam ne da la yóbbu ba ci suuf. loolu gaa yaa ngi ci. Mhm. xam nga loolu liggéey bu toll noonu ascenseur gas ko. Mhm. ak leneen dafa laaj. ay moyen ay moyens ak ay mhm. matuwaay. soroor yi dafa laaj moyens ak ay matuwaay. yeneen yi ci kaw yi muy def yëpp parce que dafay moderne. techniciens yi waxoon nañ ci mënuma ci dellu si parce que du sama domaine. li may wax ni communication bi rek la ñuy indi. mais lu toll nii. boo ko bëggee defar te nit ñi di fa ñëw. Mhm. mu war a am recevoir au moins plus de vingt deux mille personnes. Mhm. war naa nekk loo xam ni ci wàllu sécurité. boo ko doon natt tey mu ngi mhm. fees dell ña fa nekk ñëpp boo leen boo leen boo boolee. dina xaw a toll ci vingt deux mille. xaw a toll ci vingt deux mille xaw a personnes ba pare ñëpp toog. ba pare ñëpp toog. kon xam nga loolu li du liggéey bu ndaw. déedéet moo tax liggéey bi fokk nit ñi. jàpp xam ni buñ fa ñëwee. du duñu dugg ci biir mm-hmm. parce que kenn du dugg ci biir beneen bi gis dinu wut nañu sécurité mm-hmm. boo xam nit mënum prof ndoll parce que taalibe léeg-léeg mu àgg ci xër mm-hmm. foo xam ne day dugg sax maa fa dugg maa fa nangam mais dañu jël disposition sécuritaire pour nit bañ fa dugg te loolu bokk na ci lii matuwaay yi ñu war a jël mais boo taxawee ci biti di nga gis ouvrage bi di nga ci mën a photo wu di nga mën a jël ay kii gis nga mhm. sëriñ Baye Abdou ngi nii ñëwoon na visité ko xam nga kii euh, li mu def recteur université maam Cheikh Seydi Hadji Malick a ngi noonu mhm. ñëw parce que kii la nu sëriñ bi boole loon euh, keroog bi nu waree toog parce que forage bi ci biir la nekk mhm. parce que lii ndox alimenté wu ko ñaari forage lay am ñaari forage lay am ñaari forage lay am parce que li mu la actuellement ñoom liggéey ñooy liggéey liggéey forage bi mooy liggéey liggéey bi forage gën fa nekk mooy def liggéeyam donc laaj na beneen forage. Mhm. kon yooyu matuwaay yëpp. dafay tax nit ñi war a xam ni euh, joxe bi. Mhm. warul nag joxe naa naa toog. Mhm. joxe bi mooy joxewaat. waaw lépp loo xam ne woote nañ ci. di nga ci gis lu tax. nga ni boo demee naa man nag li ma laaj nekkat li ma li ma joxewoon dugal nañ ko fi. dugal nañ ko fi te loolu lépp sëriñ bi moo ni nañ ci jël ay matuwaay taxaw ci jox ko waa jamaatu nuur al sunniya. macha allah jaajëfal